Voilà, Kurava est parti entre euh, l'équipe de Songandouya et l'équipe de Mbab Gissé. C'était Mbab Gissé euh, et l'équipe de Songandouïa. Euh, pour l'instant. Songandouïa 1 à 0. Il a été Dohala. Aja Sohibu manque à condamner le brèverie à a Adinirati Aradirol Songandoy et l'équipe d'Ambaba Gizé. a toujours euh, Baba euh, Gizé. Et Songandoy euh, passe à profondeur du côté d'Ambaba Gizé. Récupère toujours, il donne son partenaire le ballon. Et l'on passe directement. Nirati nous tous. Tous pour l'équipe de Songan Ndoyo. Adjidide ila doxala songandoy e eh, Mbaba Guissé a song Mbaba Guissé ñoom ñaar bal noonu Siteu Mbaba Guissé dégagé nañ ñoom waa songandoy ñoo ko daa dégagé récupéré bal toujours Mbaba Guissé songandoy nan ah, ñoom ñaar noonu centré na ko dégagé par le défenseur de Mbaba Guissé dégagé par le défenseur de Mbaba Guissé pour euh, Mbab euh, Guissé euh, pour, pour l'équipe de a s'entraîne directement du côté de Mbab Guissé ñoom Banono la lay def Mbab Guissé toujours attention toujours à Balbi mu ngi Guissé ñu a dans passe à profondeur il a di dans toujours et dégagé bien joué le défenseur de Mbab Guissé le défenseur de Sangandoya a dégagé bal bi noonu bal touche touche rapidement qui joue rapidement ñu daa téye mbaa Mbaba Guissé ñoom ñaar bal noonu lan lay def Mbaba Guissé centre pour euh, l'équipe de qui Guissé euh, sorti à 6 mètres sorti 6 mètres Aja ba gisee y a quelques problèmes hein, du côté de Mbaba et du côté de Songandoyo. Songandoy et Aujourd'hui, Gissé. Adjasimeta dégagé par le portier de Songandoy. Mbaba Gissé de Mbakorenko. Mourad Gien 5 ans. tous encore pour l'équipe de Sangandoy. Adjunje Baye Thiaw man ka kontané ñu daté centre tuzo ataso. toujours attention centre toujours voilà du côté de tuzo Gissé toujours ñom ñaar bal was Sangandoy centre war le numéro 18 de Sangandoy attention Mbab Gissé dar jilato ñoom waa Mbaba Guissé centre na ko ñu da dem directement le numéro de cela défense centrale de mbab euh c'est Songandoy moo ko daal di dégager ba Mbaba Guissé daal di koy récupéré waat daal di téye doxal la passe en profondeur ñu da ci euh, toujours euh, Mbaba Guissé euh, Songandoy pour l'instant 1 but à 0 toujours dégagé par le défenseur du côté de Songandoy 52 toujours Mbabo Guissé. Je passe en profondeur euh, pour euh, l'équipe euh, de Songan Ndoy directement dans le milieu du potier de Songan Ndoy. Mbappé Guissé et Songan Ndoy toujours 1 à 0. Le portier de Songan Ndoy. Allez, merci beaucoup à Aliwa. Wang la kontaanee lu bëree Aliwa. Allez-y rapidement il Attention. Voilà, le portier a sorti pour euh, ramasser le ballon. La défenseur euh, de Songando est blessé. Le song, euh, défenseur de Songando est blessé. On a toujours euh, toujours euh, euh, entre euh, Gandoy euh, et l'équipe de Sangando et l'équipe de Mbab Gissé. aji ñu daal ci daal La doxalaat lay def wa waa ballon sorti corner pour l'équipe de Mbab Gissé corner pour l'AC Mbab Gissé

Euh, euh, euh, de corner encore pour l'équipe de Mbaba Merci beaucoup à Salut Diallo, Nelma Yaour. Yaour Gonour, corner centré toujours du côté de Mbaba Guissé. Encore Moudemat, Simon Mom, centré Watt, directement attention, la tête sortie en 6 mètres.

bye ciao a condamné à condamner. toujours Passe à profondeur du côté de Mbab Guissé. Ballon sorti. Tous pour euh, l'équipe de Songandouille. aje tous les gens, tous euh, arbitre euh, du courant pour l'équipe de son Songandoy euh, Mbab euh, Gissé Nous sommes à la 54e minute de ce toujours 1 but à 0 du côté de Songandoy du euh, marqué le numéro 9 Site a marqué le premier but de Songandoy à la 19e minute de ce 不慌。 Adjaba léegi coup franc encore pour l'équipe de Songando le numéro 18 tiré le coup franc ballon sorti ballon sorti 6 mètres rapidement joué euh, du côté de euh, Mbappé Guissé euh, ñoom yor ba loolu lan lay def si bal bi ñoom Mbappé Guissé passe nañ ko ñu du di teg daal di toxalaat toujours waa Songandoy daal di koy récupérer ñu daal di téye ñoom waa passe à profondeur toujours Songandoy encore moom moo yoraat ba noonu lan lay attention 不慌，不慌，不慌，勇敢斗勇。 toujours euh, du côté de Sangandoy. Coup franc tiré par le numéro 10, euh, euh, la frappe. Directement sorti en 6 mètres. Bon, contré. Sorti corner. Corner pour l'équipe de Sangandoy. Nous sommes à la 56e minute de jeu. 56e minute de jeu, toujours un but pour l'équipe de Songan Ndoye. À ce centre, nous raté directement dans le milieu de l'équipe de, euh, de l'équipe de Cité Mbaba. Mbaba qui s'est, nous sommes non, l'année de ce Mbaba qui s'est, euh, Songan Ndoye. centre nañ ko ñu daal di jëla xool si biir ñoom waa Mbaba gisé ñu téwa sen ball nonu ñu daal ya, ci passe à profondeur du côté ya, de Mbaba gisé sorti du côté de portier ya. de Songandoy Adja Fatou nee na numéro 15 songando bi nu tuddu boko xamé nga wax mom boo ko xamee rek nga wax ma ko numéro 15 Songane Ndoye boo ko xamee rek wax ma nu mu tudd lan la xanaa loo si bëgg loo si bëgg loo si bëgg loo si bëgg loo si bëgg attention Songane Ndoye Mbappé gis la frappe attention attention attention égalisation goal égalisation pour l'équipe de Mbappé Guissé Égalisation pour l'équipe d'Ambabo Gissé. Un but partout. Mbabo Et Un son Un but partout. Oh là là. Un but partout entre Songandoy. Mbabo Gissé. Le portier est blessé. Le portier de Songando est blessé. de euh, ba euh, un partout euh, du côté de Songandoy mais le portier est blessé le portier de Songandoy est blessé maintenant partout entre Songandoy euh, et Mbaba Gissé. Euh, déjà, le portier toujours euh, est blessé. Le portier est blessé toujours. Le portier, Mbaba, le portier de Songandoy est blessé. aja toujours euh, un but partout du côté de Mbaba Guissé l'équipe de Songandoy aja mu ngi noonu Amin Alimatu nee na ñun cité lañ dëkk Alimatu moo wax loolu mais Alimatu bi est-ce que du ma Alimatu sama bi bi nekk si sama téer moom la de Alimatu téer aja ba léegi joué ah, nañ rapidement l'équipe de Mbaba Guissé ñu ah. daal joué ah, songando yi dégagé nañ ko ñu daal joxaat waa ngej doy waa Mbaba Guissé daal koy dégagé waat songando toujours Momar Banon le numéro 9 il s'appelle Site toujours Momar Banon est dégagé par le défenseur de Mbaba Guissé dégagé par le défenseur de Mbaba Guissé touche toujours pour euh, l'équipe de Songandoy. Adjazou ah, euh, rapidement ñu daa dem mais man ba léegi waxoon na man bu niilee kan mooy génn kan la niil arrangé loolu laay laajte si si si si mas bi kan la niil arrangé boobu ba léegi tontu ñu ma quoi man gars daal aji ñi daa téye daa niil kan la arrangé ba gise la arrangé Mbaba Guissé la arrangé wala Songane Ndoye la arrangé ajo ñi daa téye daa doxalaat toujours euh, ballon dégagé pour euh, l'équipe euh. ah niil arrangé wul kenn niil arrangé wul kenn non niil am na ku mu arrangé normalement ah songandooy la arrangé niil kon songandooy la arrangé ok loolu rek laa bëggoon xam Fodé nee na niil songandooy la arrangé

tous dañ ko wa Songando daal di koy récupéré waat ah. ci ah, daal di doxala ah. Songando yee Mbaba Guissé attention Mbaba Guissé Mbaba Guissé centre nañ ko day la frappe va contrer toujours à Mbaba attention heureusement le défenseur est là le défenseur euh, de Songando yi à son équipe euh, il joue rapidement le niveau de site Mohamed Bano lan lay def maman le numéro 9 mu daal di le numéro 18 qui joue rapidement le numéro 18 Dambaba dans la lay son Songandoy centré na ko directement dans le milieu du portier ñu daal di téye daal di doxal Dambaba Guissé et Songandoy un but partout. attention rapidement ñu daal teg daal di doxal Dambaba Guissé attention il est dégagé tout franc pour euh, l'équipe coup franc pour euh, l'équipe euh, de Mbaba Guissé non Mbaba Guissé euh, bu niilee day am 4 points Songandoy bu niilee day am 3 points bu niilee 3 5 points dama jum Songandoy bu niilee 5 points la am Mbaba Guissé bu niilee am 4 points Onzora. Ya da Sangando ya est eh, blessé. Onzora ya Onzora Sangando ya bless it. Adja Pa Salima na ma non Songa Ndoye 4 points la am Mbaba Guissé am 5 points kon Mbaba Guissé bu niilee bu niilee kon niil bi Mbaba Guissé la arrangé kon niil bi Mbaba Guissé la arrangé bu niilee waaw ngeen na man ay Songa Ndoye yox euh, attention dégagé toujours du côté euh, de de Songa Ndoye euh, ñu daal ci daal doxal jël nañu bal bi daal di koy directement à du projet de l'équipe de Songa Ndoye ñu daal ci daal doxal Songa Ndoye toujours dégagé rapidement joué dégagé encore du côté de Songa Ndoye ñu daal ci nañ ko encore Songa Ndoye ñoo ko daal di dégagé waat ñu daal teg daal di doxal encore beneen dégagé waat du côté de Songa Ndoye attention arbitre lu wax ba léegi ñu daal ci songando yi attention taakale nañ ko ñu daal di daal di doxal mais joué mais joué joueur attention dégagé toujours songando yi ñu récupéré bal noonu récupéré nañ ko Mbaba Guissé daal récupérer Jom récupéré ñoom Guissé toujours le meilleur ballon passe à profondeur du côté de Mbaba Guissé Mbaba Guissé Mbaba Guissé toujours euh, dañ a taaxale ba léegi mu daal qui passe à profondeur du côté de Mbaba Guissé Mbaba Guissé encore beneen passe à profondeur oh là bien joué le défenseur euh, c'est son équipe euh, mais il a arrêté le ballon qui joue rapidement Mbaba Guissé il lay def ñoo a ballon am dóob joxaja la frappe goal le deuxième but Le deuxième but de Mbaba Guissé. Le deuxième but de Mbaba Guissé. Deux buts à un Adja 2 buts a 1 pour l'équipe de Mbaba Guissé Mbaba Guissé man 2 buts à 1 non jongol man euh, bul tooñ xam naa ni jongol ba moo am 6 points pencum gorom am 4 points kon Mbaba Guissé bu dóoree mooy nekk deux pour l'instant Baba gise moo nekk deux wala premier Baba Guissé bu dóoree six points la am non yéen daal seen explication xaw ma dara ñii day wax lii ñuy wax lii ñuy wax lii ñuy wax lii baax na dinaa laajte lu gën a leer man dinaa laajte zone bi dinaa leen laaj amul problème bu ma kenn wax di laajatuma kenn seetaan leen ngeen commentaire aja deux visant pour l'équipe aja koli na mu ngi jooy kumba koli nee na day jooy ya aja bali ñu daa téye ya daa ñoo ko daal di téye daal di koy doxal Songandoy ya ñu daal bal noonu à sa profondeur du côté de ya ñaakoo nañ ko ñu daa téye daal di doxal Songandoy toujours jël nañ bal bi daal di koy jiwaat ba nyom songando yi ñoom ñoo yor bal noonu ñoom waa Mbaba Guissé ñoom ñoo yor bal noonu passe à profondeur du côté de Mbaba Guissé attention dégagé nañ ko tous encore pour l'équipe de songando yi da lay def songando yi nañ ko daal ballon sorti en ballon sorti en touche pour l'équipe de Mbab Guissé. On sorti tous pour Mbab Guissé. Adjabale gi ñu raté daa di doxalaat Mbaba Guissé lan lay def si bal ñoom récupéré nañ ko arbitre a sifflé coup franc coup franc toujours du côté euh, de euh, Songandoy aja ba léegi waa Mbaba Guissé ñoo rabal noonu passe à profondeur du côté de Mbaba Guissé Mbaba Guissé day jóg attention day joué toujours l'équipe de Mbaba Guissé aja Albouri maa ngi laa kontaane merci beaucoup Albouri ah, Albouri nee na Moustapha yow rek laay topp merci beaucoup man tamit yéen rek laay topp Albouri maa ngi kontaane Albouri doomu nday Pak Boy l'abbé ngi centre attention mauvaise sortie pour le portier est blessé maintenant ayo corner corner pour l'équipe de Mbaba euh, Guissé 73e minute de jeu la attention dégagé et contré toujours du côté de Mbaba Guissé ñoo ko yor lan lay def waa Mbaba Guissé toujours ñoo yor bal noonu day centré centré mu daal di waa Mbaba Guissé passe à profondeur la frappe a la jaante raray kii ba léegi goal bi attention Mbaba Guissé et l'équipe de Song Songandoy aji ñu daal di doxalaat dégagé oh là là toujours Songa Ndoye et l'équipe de Mbaba Guissé on va jouer nee na mu ngi noonu aja alburi doom day pak booy nee na ma bilaay pi booy 93 rek aja <laughs> maa ngi kaa kontaane moom la zami de pi booy maa ngi kaa lu bëri bëri nuyul ma nuyul ma pi booy nekka maa ngi kaa kontaane nekka Moussa Fa mu ngi lay nuyu nekka Aja Alburi mu ngi noonu nee bu ñëweetee mu sédd ma si sérité bi day ñëw rek te du ma sédd si sérité bi du yoon nee nga mu may sédd si sérité bi nee am nga fi benn fangs chaque jour day wax. Ndiaga sa fans bi nee na chaque jour day wax si yow ma loolu ki nga xam ne moo di Piboy 99 aja Saliou nee na bi day nelaw <laughs> maa la ko wax instant yeewoogul de mais wax naa ko nee naa ko jëlal mbuusu ndox nga sëlmu boo jëlee mbuusu ndox boo sëlmoo rek dina yeewu aja merci beaucoup ak Kumba lii nee na dina ma invité aja kumbali ah, balaa nga maa invité jëlal la numéro commercial Tafal Enco boo ko oowee nekk numéro Moustapha laa soxla numéro Tafa laa soxla ñu jox la numéro Tafa nekk numéro Tafa rek laa soxla boo ko waxee boo laajee numéro Tafa rek ah, dina la jox sama numéro incha allah rabi kon mu ngi noonu aja le numéro commercial Tafal Enco est là aja merci beaucoup abou Abdou Abdou Ba manka contane ay keur la may yaa moom Abdou Ba Allez-y rapidement l'équipe de songando ya dégagé Ninko. ko a dit à Radi Rolat Songandoy et l'équipe du jour rapidement passe à profondeur du côté de Sitem gissé Wa Sitem Babakissé à songando récupère wa nañ bal bi. Il a dit wa di doxala attention ba légui euh, mbëkk nañ ko. Il Là, là lay devant. toujours euh, son attention à lui le coup franc coup Aja mi ngi Asal Asal fay Asal fay nee na ma taf loo gis rek ngañ doy la Aja la la wane na ma lo gis rek ngañ doy la attention ba legi man wa ngañ doy dama leni di sa saa su ne barki yonent bi man wa ngañ doy dama leni di man yeen rek la top barki yonent bi wa ngañ doy kese la top Aja merci beaucoup Aja babakar manka ngi mom babakar Aja di ziar awasi Cité baba aja mu ngi noonu on ira ti isa nena Alex Sitam Baba Guissé centré nañ ko on va jouer 75e minute de jeu toujours l'équipe de Baba Guissé irati daal di doxalaat waa Baba Guissé ñoom ñoo yor bal noonu lan lay def si bal bi ba léegi Baba Guissé ñoo yor bal noonu passe à profondeur lan lay def Baba Guissé et Songa Ndoye qui joue rapidement Songandoy encore Nyemnier Banono passe à profondeur du côté de Songandoy et dégagé par le défenseur de euh, Mbappé Toujours Nidar qui était récupérer récupéré Nyemwa Mbappé Gissé. Nyemnier Banono les jouer Mbappé Gissé. Toujours euh, la ligne attention récupérer du côté de Songandoy et arbitre a sifflé tous. Arbitre a sifflé tous. Ça y est, Mandal, Khamo Khamo Khamo Mandal, Ni ni kii moo jël kii 6 points kii 7 points kii 12 points man daal yéen a ngaw rek man après naa laajte mu leer sama bopp bi xanaa nii man moom amaguma lu dara lu leer. fii laa laajte bu niil arrangé kan lay bu ñu ñëwee kan ñii naan man songandooy ñii naan man maa mbaba gisee ñii naan man bul tooñ ñii naan man lu nekk wax nañ ma ko waaye baax na. aja ba léegi yow songandooy yoo ñoom yor ba noonu. qui joue rapidement passe à profondeur Yati a daal di doxal ba léegi lan lay def coup franc coup franc pour euh, l'équipe de Mbaba Guissé aja dégagé joue rapidement lan lay def ñoom Mbaba Guissé ñoo ko daal di dégagé Yati daal di doxal passe à profondeur attention arbitre bi mu wax wa Mbaba wa Songa Ndoye arbitre a sifflé arbitre a sifflé coup franc aja ñu daal di daal di doxal Mbaba Guissé toujours euh, Songa Ndoye euh, ñoom ñor bal noonu ñu daal di daal di doxal Songa Ndoye toujours euh, Mbaba Guissé daal di récupérer bal bi ñu daal di daal di doxal Mbaba Guissé attention attention Mbaba Guissé Mbaba Guissé Mbaba Guissé Mbappé Guissé la frappe de Mbappé Guissé la il là Adja Albury mon ami mon frère Adja Albury kenn du yow maa la wax yow yàlla na sa jàmm yàbb nee naa leen Albury waxal ma Piboy nee nga am nga fi benn fanks nee mu jox ma si mooy may sol mu indil mu jox ma si sérité yi may tey moom Piboy nee nga am na fansi bu mag bu mag a mag a mag nee nga waa Fall Inco la ñuy Adjabale Ñiraati doxal nañ passe à profondeur du côté de Mbaba Guissé ñoo yor ba noonu beneen passaat Ñiraati ñoom waa Mbaba Guissé am Diop joxal Ndiaye waa Mbaba bi Guissé ñoo tee bal bi doonu jël nañ bal bi di ko doxal la waa Mbaba Guissé day centré xàcc na mu daal di daw mu daal di avancé tuuti daal di joxante waat bal bi day dem la frappe et passe à profondeur du côté de Mbaba Guissé toujours lan def centre la tête troisième Le troisième but de Mbappé Le troisième but pour la Mbaba Gissé. Mbappé Oh là là, 3 buts à 1. Remontada. Remontada du côté de Mbaba Guissé. Adja Amer Cissé maa ngi laa Amer Cissé Espagne di ma bëggee moom Amer Cissé kenn du yow Amer Cissé maa ngi laa kontaane lu bëree bëri Adja mu ngi noonu waa Mbaba Guissé ñu ngi zibile waa Mbaba Guissé ñu zibile Aïssa Aïssa maa ngi kaa Aïssa Rasoul Camara mu ngi Mbaba di ma mu ngi euh, kontane aja maa ngi euh, les amis de piboya ya. maa kontane kontaanee les amis de piboya ya. nee naa leen euh, loo leen gis mu leer fii Piboy la c'est Paka Boy gis ngeen lamba yi Boy gérer ngeen li lamba yi nu mu leeree nii grâce à Paka Boy nee naa leen stade Ngalandou Diouf bu leeree grâce à Boy oh là là stade bu di gis nee len leen instant dos sax takkandeer di nga gis takkandeer waaye takkandeer yi nga daan gis ay ñaari takkandeer nga daan gis ay ñetti takkandeer nga daan gis grâce à Piboy maa ngi merci beaucoup à ah, Ahmed Cissé manka ngi Ahmed Cissé mon mu ngi Espagne sa Espagne dama seetaan rapidement ñu laa téye ba gisee encore passe à profondeur toujours rapidement lan lay def oh niakonogo là ñàkk na ko instant ah, ñu laa téye ah, daal di ba eh, l'équipe toujours ah, ñu laa téye mbaa ba gisee ñu laa teg daal di doxal toujours mbaa ba gisee ñoom ñaar ba lan lay def. Voilà, changement à côté euh, l'équipe de Le numéro 9, entrée, sorti pour le numéro 13. Le numéro 9, entrée, sorti pour le numéro 13. merci beaucoup à ah, Babakar. Babakar n'est pas très top. Voilà, le numéro 13, le numéro 9, entrée. Sorti pour le numéro 13 et là. Le numéro 13, sortie. Bon, est que aca maa ngi kaa kontaane moom Aïssa Rasoul la Aïssa Rasoul moom Mbaba Guissé lay supporté Siteu Mbaba Guissé aja toujours ñu daal di xoola la lay def ñoom waa Mbaba Guissé aja Baye Thiam mu ngi jooy moom Baye Thiam ay jooy lay def aja yaaya manga ngi toujours Mbaba nous ñu un lan lay ñu ka aja ba légui ñu ngi dem aja Moustapha aja ba légui ñu voilà l'entraîneur de Mbaba il a fait une technique de ballon rapidement Mbappé et l'équipe dose Sangan Ndoye Sangan Ndoye ñàkk nañ ko jël nañ bal bi daal récupéré ñoom waa Mbaba Guissé arbitre néna coup pour l'équipe de Sangan Ndoye coup pour l'équipe de Sangan Ndoye Il a été hors-jeu arbitre a sifflé un hors-jeu arbitre a sifflé hors-jeu pour l'équipe de Mbappé Guissé Adja maa ngi kontaanee Assou nee ma salut nee ma ça va ma ne ko tamit Assou Adja mu ngi kontaanee moom Aïcha ay kër la ma may xam naa deseetoo gën kër deseetoo kër xam naa loolu. waaye damay euh, waxaat rek euh, joyeux anniversaire à bébé Mouhamed bébé papa joyeux anniversaire maa ngi kontaanee moom bébé papa di ko wax happy birthday euh, longue vie à toi à bébé papa sama xarit c'est mon fils. il joue rapidement l'année lay def a sifflé coup la toujours ah, l'équipe de moi, dégazé pour le défenseur de Mbappé ah, pour l'équipe de encore le numéro 7, André, sorti pour le numéro 11. Sorti pour le numéro 11, Dambaba Gissé. Adja Fatou. Fatou Nena, Mbaba Gissé, les monde Fatou, Adja Munginono, Kon, donc, Yenye Ramantania, ah, Bogengen, ah, Am numéro téléphone Unko est là. Le numéro commercial de Falunko. le numéro commercial de FALUNKO ñu noonu wa naa leen euh, Moustapha ku bëgg numéro am hôtel si numéro boobu aussi tamit euh, ku bëgg le numéro DG de Falinko est là naa leen euh, ku bëgg Falinko ànd ak yow gis ko a final la nee naa leen Falinko ku mu àndal ku nekk rek jàppal ni aca 3 minutes de temps additionnel la arbitre a donné 3 minutes de temps additionnel la de cette deuxième mi-temps Arbitre a donné 3 minutes de temps additionnel la deuxième deuxième mi-temps. Adja Aïda Camara Aïda Camara maa ngi kaa kontaane moom Cité lay supporté Cité. Adja nee na ma Romantada Cheikh moom ne Romantada daa téye daa di doxal. Adja toujours Baba Guissé et l'équipe ñu daal di jour yéen bu leen am dara leen métti ku fi saaga kay ngay génn si ngay seetaan si scène loolu moom lu ma leer si ngay géej seetaan mas ku fi saaga si ngay gëj a seetaan bu lay am dara leen métti commentaire leen waxtaan nice happy nice ici c'est Fall tout le monde sa happy. qui n'est pas happy, qui il faut gagner le direct qui n'est pas suivre la masse maintenant ajal no passe joli passe magnifique du côté de son ba léegi ñu daal le numéro 10 il a forcé attention le numéro 10 toujours frappé et contré arbitre a tiré corner arbitre a le corner aja merci beaucoup ah Ahmed Cissé nee mo Moustapha na sa jamm yag. merci beaucoup ah Ahmed Cissé yow tamit yalla na sa jamm yag. Ya amal jamm ju bëree bëri jarul saga maa nga fadu. No jarul saga no dañu impul xam nga nit mom niñ la yaree sa gal rek ngay génne ci mbedd mi nee la bu dañ la yar Ci yar mu yar bu teggin yar bu teggine Bo génnee mom dang ka woné. Fo mën ci dem dang ka woné waaye di dugg foo xamante ay mag ñu ngi sétan ay kilfa ñu ngi sétan ñepp ngi sétan nga bëgg a dugg di saga néna si nga genn aca wa ma ngi ziar waa Lebougui 2000 on va jouer tout à l'heure Lebougui 2000 day jouer ci kanam tout inshallah rabbi bu mas bi jexé rek Lebougui 2000 moy ñëwaata aja merci beaucoup Songane remonté de remonté da man waxuma ko nag supporter yi ak wax dégager nañ ko daal di waa Songando daal di téewaat defaat nañ beneen profondeur ñu daal di tëb na mbokk ko moom le numéro 9 c'est Siteu Siteu jëlaat na bal bi mu ngaat toujours euh, l'équipe de Songando yi la rassemblement de Songando yi moo téye bal noonu ñu la toxal euh, Songando yi et l'équipe euh, du côté dégagé par le défenseur de Siteu Mbaba Guissé toujours rapidement lan lay def attention Songando yi aja mu ngi noonu jongul bandu sipe plus 3 voilà dégagé Jungle Bandoul 6 points plus 3 C'est un Guissé 6 points plus 2 jongul Bandoul moo le premier am 6 points plus 3 un Mbaba Guissé le deuxième am 6 euh, points plus 2 Qui est à voilà Massi est terminé Massi est terminé entre Djongulba, entre Mbabo et l'équipe de Songadoui. Mbabo est qualifié. Mbabo est qualifié. Voilà. Nous sommes nii kon Jongul Nous sommes nekk premier am 6 points plus 3 euh, ki de Moria. Euh, Mbabo Gizé di euh, deuxième am 6 points plus 2 pencum 4 jël 3 troisième am 4 points plus 0 am 4 points plus 0 ki xamanteni am 4 points plus 0 l'équipe de Songandoy am 3 points plus 4 ki xamanteni xamante modi moom moo di Njaxiraat ASC 1 plus 0 merci beaucoup à Ahmadou Manka Kontale, Ahmadou Sissé. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs euh, de Falengo. On vous donne rendez-vous à tous de suite. Simassia, eh bien entendu, mon war am à 4e heure. Nee naa leen maa yéen du yomb maa yéen ba géej feex man ay yéen doo dawul du daw nee Falengo ay ku daw rek du daw Lebougui 2000 et jamba. On, on se donne rendez-vous à tout de suite Lebougui 2000 et l'équipe de Jamba léegi léegi les gars ah, ngi dem ngi 2000. ay jàmbaax fii lay xewee si Fall Inco léegi-léegi bu génn daw ku daw doodoo ko seetaan feneen fii rek nga ko mën a seetaan si Fall Inco image bu daw bu dul Fall Inco image bu pirate la les gars aca merci aja les gars tout de suite à tout à léegi-léegi maa ngi dem maa ngi ñëw fii lay xewee si Fall Inco léegi-léegi les